ñi sétane al furqan TV abonné len da ngeen lal tous notification bi da ngeen aimé vidéo bi bu len ci tayel ben yoon abonné fu xonq fi la bësal lal sonori gi vidéo bu ñew nga teel cee barkeelu ba pare nag email te partage vidéo bi ngir sa yeneeni mbokk jot ci jangeen jëf al furqan di daji bidda di saxal sunna الفرقان ديداج بدا ديساخ الفرق بين الحق والباطل الفرقان سيربيني واخ جواهر المعاني وبلوغ الاماني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 mbokku alfourqan ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen ziar di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko ñu del siwaat ci jotaayub ñaareel ci jawahirul maani fi l misan di téere bii di jawahirul maani bu ñu ko tege ci balance alquran ak sunna lan mooy doon résultat bi xam ngeen ne jotaay bi paase woon defoon nañ benn matxal muy ab dugguwaay boo xam ne leeraloon nañ ci ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam lépp luy jegeel nit aljanna mba di mbaa mu di ko suril safara yonent bi sallallahu alayhi wa leeral na ko euh, ba nga xam ne diine ji mat na mat goo xam ne ajowul participation bu jógee ci ma sàmba walla bu jóge ci ma demba ndax lu ca war a leer lu nekk rekk daldi nay leer waaye itam ajowul benn woote boo xam ne nit da koy woote gannaawam di tër ay jagle di ko jagleel boppam walla mu di ko jagleel aw nit moo xam ay taalibeem lañ wala ay doomam lañ wala ñoo bokk ak moom am mbooloo ndax lu doon yi jagle rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ña ko lu doon yi ngëneel it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ko bu yàgg kon tey insha allahu taala e, ñu ngi ci page bi nga xam ne mooy 176 Euh, ci mujallat bu njëkk bi mu ngi ànd ak nag wala ñu ngi ànd ak euh, jawaayir bi nga xam ne taxqiqu Cheikh Tidiane Ali Cissé la te mooy ñaari mujallat yi euh, borom téere bi di Ali Harazim gannaaw bu mu kañee sëriñam bi kañ itam li mu indi ci ay wirde si la daa di wax nag ne kon daa fas yéene leeral wirde yi nga xam ne moom la ab sëriñam indi mooy li mu ne wa hada awaanu shuruuci fa aqulu wa billahi al iaanatu waltawfiq والهادي بمنه وكرمه إلى سواء الطريق مدادنا أما أوراده رضي الله عنه الذي يلقى لكافة القلق الذي رتبه له سيد الوجود وعلم الشهود هو أستغفر الله مئة مرة والصلاة على رسول الله بأي صيغة كانت مئة مرة ثم الهيللة مئة مرة أه، دبنا كنا نمو مغي فسيين دوغو leeral wirday sëriñam mu ne nag wirde yooyu mooy yi nga xam ne dafa digle ñu jox ko mbooleem mbindeef yi maanaam amul xaajale mënees na koo jox ku ko sàkk ku nekk mu daldi nag ne wirde woowu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko jox moo ko ko toftaleel foofu nag dañ fay am ab taxaw ndax mboolem gi jaawaal yi nga xam ne moom lañuy dégg mu jóge ci sufiyanke yi rawatina ci attijaaniya fii mooy sabab bi mooy gëm ne yonent bi sallallahu alayhi alihi wa sallam gannaaw boo xamee ne yàlla yónni na ko mu sax gannaaw yonent yaa ngi ñaar fukki at ak ñett di leeral diine ji leeral ko leeral goo xam ne comme ni ma ko waxee woon kerak ba ci li ñu jàpp ne sax solo melut noona te mooy dem ci wanag mu leeral sax soo fay dugg tànk ba ngay njëkkee ak ba ngay mujjee ak loo fay wax ak noo koy defee ak lépp mu leeral ko sallallahu alayhi wa alihi nga jàppati ne gannaaw gi dafa delciwaat ci àdduna di wër di jàngalewaat meneen jàngale moo xam ne paateeg dem ba ñoo koy bokk waaye ñoo say am sañ-sañ it waaye lee ay mbuut lay doon it loo xam ne dukkum neex mu xam ko moom yonent boobu it ba mu delsee du kum neex mu gis ko daa am ñu koy gis ak ñu ko dul gis daa am ñu muy jagleel lii ak ñu mu ko dul jagleel daa am ñu doon waayam ak ñoo xam ne doonuñu waayam ci jullit ñi loola ma ne gëm ko mbooleem gijaawaali yi ñuy dégg ci biir tasawuf foofu la jógee rawatina ci biir at tariqa tijaaniya ndax keroog noonu naa leen bunt bii di buntub zikr yonent bi sallallahu alayhi wa alihi da koo jàngale ba mu leer nàññi nga xam ne am na dikkir yoo xam ne ay wirde yoo xam ne da koo jàngale ne dañ koy def suba ngoon am ay wirde yoo xam ne da koo jàngale ne su mbir gaaree lañ koy def nga xam ne jullit bi mënul xaajal du ma ne mënul jeexal mais mënul xaajal wirde yooyu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom la ko jàngal ci suba géeg ngoon gi ak ci al ahwaalul aarida muy mbir yi nga xam ne dafa gaar mënu ko jeexal kon su ko fa bàyyee di déglu keneen ku ko naan yonent bi gannaaw bum gaañoo la génn doon wër ñëw dajeeg man kooka nga xam ne diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama junne yi at yu teg la ma ne su fa bàyyee wér de yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di jàpp ca waxi waajooja di ko gëm di ko dëggal kooka su boobaa loola mu def lu ko ca fekk ëllëg yowmal qiyaama moom mooy ki nga xam ne moom moo ko sababal boppam kon fii mooy problème bi mooy jàpp ne wérde wi nga xam ne moom la attijaani indi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko jox muy bunt boo xam ne bunt musiba la ndax su xasee ba ubbee rek mën a mënee su koo tëjati ndax moom ba mu koy wax man fekkewuma ko keneen fekkewu ko keneen fekkewu ko waaw léegi lan moo mën a tere man mii itam su ma neexee ma toog ne am naa loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko jox ma ràbbu ci lu ma neex ci tiyaabo comme ni ko tijaan yi defee jël lu ko neex ci ay tiyaabo mu ràbb ko ca loola loola it su boobaa mënees naa wax ne dara du ko tere ndax amul ay régal yoo xam ne ci lay dox yoo xam ne dañuy day tax ñu xam ne lii mën naa nekk wala lii mënta nekk lii jaadu na wala lii jaaduwul tegaluñ ko yenn régal yoo xam ne bu wuuti amee ñu mën a àtte woo ji ca régal yooyu loolu amul ci mbiram kon gijaawaali gu magi moy, mooy jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa del siwaat aduna euh, di joxe ay mbar feggu euh, di joxe ay ngëneel yo kamne du jullit ni ñëpp la koy jox du ñoom la koy boole te ñu xam ne bi sallallahu alayhi wa sallama si dundam lam doon jangale di ko wax ci ay di ko wax ci ay ku def nangam am nangam ku def nangam am nangam lola julit ñi ñepp ko bokku waaye amul genn mbar fekk goo xam ne danaan zikir euh, bi ku ko wax téeméeri yoon wala ku ko wax ñaar fukki yoon subaa dangay am nangam ci tiyaabo waaye fekk ne loolu Aboubacar doo nga ko sañ ci diina wala Omar doo nga ko sañ ci diina wala Ousmane doo nga ko moom lam doon jàngale ñépp ñoo ko bokk alayhi salaatu wassalaam kon lii weddi wax ji ñuy wax ne dafay génn di tasaarewaat ay mbir di joxe yeneen i mbir di indi ay mbar feggu li koy weddi mooy ba muy dund sallallahu alayhi wa sallam am njàngale melu doon noona kon waxatu malaak nag su demee ba faatu ñu bëgg a jàpp ne am mbiram wala ay mbiram noona lay demee kon loola euh, mooy li nga xam ne moom lañuy ñuy njëkk daaj ji sànni ko fee ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du fi ñëwaat di jàngal kenn lenn wala di joxe kenn lenn ndax la doon jàngale jàngale na ko ba pare mu daal di dem alquran a ngi fi des sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi si des kon soxla wuñ wér day paate wala wér day demba te yu wér day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk fii euh, kon gis nga wér wi ni mu ko tegee nii itam te mooy nee na wér wi mooy nga wax. laa ilaha illa allah wala astaghfirullah téeméeri yoon euh, wax salaatu ala nabi téeméeri yoon wax laa ilaha illa allah téeméeri yoon ma ne tënk gi mu tënk wérde wi ci loola rek nga xam ne yow bu dee dem nga ba nekk ab taalibe ci moom loola mooy doon sa wérda loola rek xañ nit ki yiw wu bari la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jàngale na yeneeni xeeti wirda yoo xam ne dëgg-dëgg la ca nekk ci tiyaabo àppwul te dafa am garante mathalan subhanallah wa bihamdi adada xalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midaada kalimaati mathalan sayidul istigfaar nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne ku ko wax suba nga faatu balaa da ngay dugg aljana ko ko wax ngoon nga faatu bala suba da ngay dugg aljana dégg nga niki noonu subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim wala subhanallah wa bihamdihi rek timir yoon wala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir gis nga yii yëpp duggul ci duggul ci wérde at tijaani su ko defee yow mi nga xam ne lii rek moom nga jàpp ci wérde lii rek nga xam ci wirde ñaata yiw moo lay raw ci wirde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te boo nekkoon ci al adkaar adkaaru wal masaa muy wirde suba yi ak wirde ngoon yi nga xam ne moom la yonent tabi sallallahu alayhi wa sallam jàngale yii yëpp ni ko noon dafay dugg ci sa biit ay adkaar waaw nga di ko def suba di ko def ngoon kon euh, lii tënk la ab tënk la boo xam ne dañ koo tënk talibé taalibetiyan bi li mu wax nak ne mu ne xam nga bimu waxé waxee yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne wa kawnu salati ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi salati al alfaati ma uliqa afdal manam lu jitu lol dafa waxoon ne wa salatu ala rasulillah bi ay sighatin kanat mune euh Euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag siixa boo ko defee baax na loolu nag ma ne tadlisun makshuf la waaw loolu tadlisun makshuf maanaam ak lëntal la goo xam ne ñi xam alquran ak sunna daañ xam ne lii ak lëntal la goo xam ne gu ñu wuññi la xam nga lu tax loolu ñuy wax ne siixa bu nekk dañoo bañ ku leen critiquer moo tax ñu wax loo la waaye gëmuñu ko li ñu gëm mooy defe ko ci salaatul faatih moo gën moom si boppam leeral na ko mu li mu wax ne wa kawnu alsalaati ala rasulillah bi salaatil faatixi lima uliqa afdalu wa akmalu indiwul nag benn lay amul benn dalil bu mu taxawal ne jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci salaatul fatih moo gën mbooleem julli goo xam ne da koy julle ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon liñ bëgg mooy taalibe tijaan bi buy wér da na na bu àggee ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na jullee ci moom ci salaatul fatih donc yow jullit bi nga war a laaj sa bopp lu tax salaatul fatih salaatu salaatul ci tijaan yi bu leen fàtte moo gën alquranul karim wa bal gënee na ko juróom benn junne yoon comme niñ ko waxee ñoom waaw lu gën alquran nag kon ñoom duñ nangu ne salaatu gi nga xam ne yonent bi alayhi moo ko jàngale duñu nangu ne googu ko gën nangu mukk ne googu nga yonent bi eh, saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ci seenub yar ak ci seenu teggin ak ci seen xam diina ak ci seenu mbaax ak ci seen ragal yàlla subhanahu wa taala bi yàlla wàccee aaya ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla akub yonantam de wala yàlla ak ay malaayikaam ñoo ngi julli ci yonantu bi alayhi salaatu wassalaam daa dina yéen ñi nga xam ne gëm ngeen julli leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ngeen sëlmal ci moom est-ce que saxaaba yi dañ doon jaay martaba walla daraja wala xam-xam walla jege yàlla wala maqaama ba tax kenn ku nekk wéet fële daal di fent ab jullim ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa wallahi abadan déedéet mukk ñoom duñu xalaat lool bal saxaabi bi nee na dañoo ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasul allah qad alimna kayfa nusallimu alayka fa kayfa nusalli alayka yow yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam xam nañu nan lañ nan lañ lay nuyooyee xam nañ ko waaye nag comme yàlla dañoo digal ñu julli ci yow dañoo xamul nan la ñuy jullee ci yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal leen ne leen قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid waaw ba julli gi jeex lu tax jàngalul leen salaatul fatih su dee salaatul fatih moo gën lu tax tegtalul leen salaatul fatih bu fekkee ne moo gën lu tax leeralalul leen salaatul fatih na leen moo gën ci mbooleem nu ñuy jullee ci man ku nekk xam na lu mu gàtt gàtt àll wa xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama la jóge fa moom moo gën a foor lépp lu jógee ci keneen wala leneen bal jël lu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di ko méngaleeg lu jóge ci keneen rek loola rek manque de respect la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ak ci am njàngaleem waaye nag nii la ñu fekkee tijaan yi def ko wax ne salaatul fatih moo gën alquran juróom benn junne yoon kon moo gën salaatu ala nabi bi yonent bi jàngale moom loolu taxu da wax waaye nag salaatul faate moom daañ si eh, daañ si dellusiwaat eh, danañ ko jot incha allah ci waxtaan woo xam ne wu yaatoo yaatu lay doon eh, bërëb bi béréb bi tënk rek la ak romb ci kàddu yooyu moo tax indiwul benn firnde comme ni ma ko waxee benn firnde buy wane ne <laughs> salaatul faate moo gën beneen salaatu bu dul moom lu dul li mu wax rek ne ngir li nekk ci salaatul faate ci ay ngëneel loo xam ne lu màgg la ak tiyaabo joo xam ne ju rëy la nga xam ne ki ko joxe rek mooy ki nga xam ne ni moom moo ko xam waa léegi loolu moo loolu du dara loolu du waxi dara loolu du waxi dara loolu du dalil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxewul salaatul fatih bal borom bi tabaraka wa joxe joxewul salaatul fatih salaatul fatih ay ay baat yu ñu ràbbalante rek la waaye nekkul ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale nekkul ne borom bi tabaaraka wa taala moo ko wax ci alquraanam kon jël alquraan jël salaatul faati di ko gënale ci alquraan bal jël salaatul ibrahimiya sax naan salaatul faati moo ko gën loolu rek musiba la ci diina waaw tombub ñetteel bi ba tey ci même paase bi euh, gannaaw bu mu waxee waxtu wérde wi waxtum ci suba ak waxtum ci ngoon mu ne wa man axada hada al wirda wa tarakahu tarkan kulliyan aw mutahaawinan bihi xallat bihi uqubatun wa yaatihi al halaak mu ne wa hada ixbaarun min sayidi al wujudi li cheikhina radiallahu anhu mu ne képp koo xam ne nag jàpp na wérde wi wérde tijaan mu bàyyi ko bàyyi koo xam ne bàyyi gu ñu booyal la mooy mu bako daal xëy na dafa dem ci beneen tariqa wala dafa dem ci beneen wirda wala da koo bàyyi nangootu koo def wala sax nag mu di ko sàggane mu di ko sàggane nee na kooku moom xallat bi uqubatun mbëgalum yàlla dana wàcc ci moom wayaat yaati il xalaaku xalaku dana ko dikkalitam moom dongo bi ali xarazim mu ne lii nag yonent bi moo ko wax cheikh boo tegee sa baaraam foofu ci comme kuy analyser looy seetlu yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon naa leen ne indi na ay wird jàngle na ay wirt mais moom wird yi mu jàngale mu ëpp tiyaabo ëpp garante loolu sax mooy bu dee yële am na tiyaabo wala am na garante waaye yim indi mu ëpp tiyaabu ëpp garante moom waxul ne <laughs> ku ko bàyyi dangay alku mbugal da lay dikkal waxut loolu sallallahu alayhi wa sallam waxut loolu ci moom kon nan la cheikh di mën a wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne ko sa wirde wi yow wirde wi nga xam ne bi mu ñëwee ci lislaam ak léegi fekk na lislaam am junney at ak lu teg maanaam wér de léegi daanaka ñetti téeméeri at la borom wér de léegi daanaka ñetti téeméeri at la muy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma wax ne ma sa wér de wi ku ko jàpp nga bàyyi ko da ngay alku loolu moo tax yeneen jullit ñi war nañ bàyyi xel tijaan yi bu baax a baax a baax parce que tijaan yi am nañ ay pas-pas yu garaaw yu ñu fas bokk na ci loolu mooy képp ku mos a nekk tiijaan bàyyi ko alku nga waaw ni nga alkoo ci àdduna da nga ko alkoo àllaaxira itam safara ngay dem loolu pas-pas la si tijaan yi dañ koo gëm bokk na ci loolu nit lu mu foor foor foor lu mu baax baax baax baax nekk wëli yu yàlla subhanahu wa taala dañ lay tere nga tere nga nga ziyaare ji ko comme que nekkut ab tijaan ni yow dañ lay tere nga dem ziyaare ji ko façon pas-pas yi pas-pas yu jar a bàyyi xel la kon ñun li ñuy wax foofu rek mooy gijaawaali gi li ko sabab yépp mooy taxaw naa ne yonent bi sens la moo ma ne nàngam moo tax li ñu war a gën a xeex mooy nit kuy taxaw fële naan yonent bi feeñu na ma yaqdatan laa a man di wax naan moom moo ma ne nàngam wala moo ma ne nàngam waaw ndax loolu day indi yàqute ci diina day màbbu diina day ubbi buntu caaxaan itam kum neex ku nekk mu taxaw fële wax ko doon naa ko wax jamono jële eh, ci biir tariqa bi benn waaye da ciy génn woote woo ay woote woo ñu ne moom waxul dëgg gaa yi di ko ngawti ngawtee heure bu nekk ma ne leen pourtant ki sos tariqa bi ci boppam woote woom bi nii rek la amul firnde ci alquran encore amul firnde ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon su ngeen ko ko nangulee sukki keneen wootee yi te war ngeen ko ko mën a nangul war ngeen ko ko mën a nangul ndax bunt bu tijjeeku rek la ku bëgg a génn da ngay génn ku bëgg a dugg itam da ngay dugg waaw bu fekkoon ne lii dañuy àttewoo ci alquran ak sunna dong dañ ko daan lii fu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis kan moo ko solo xaddis boobu kan moo ko wéral ban birab la nekk ci alquran ban aaya ban saar dangay gis ne du am benn firnde benn firnde du ko sa doon am ni ko su ko defee wax ja day daal di farankalaayu ci saasi ñu xam fu dëgg fiite kon euh, gëm ku jàpp wirdu tijaan bàyyi ko <laughs> da alku euh, wala mbugal dalay lay dikkal loola amul ben firnde ci alquran amul firnde ci sunna yonent bi sallallahu alaihi wa sallam te yonent bi wirna yim jàngale waxul ne ku len jàpp bu len baye day alku wa la fi dunya wala fi alakhirah waxu day alku ci aduna waxu day alku tam ci alakhirah kon yi ay wax rek la yo xamne ne amul ben firnde amul ben dalil ba tey ci page 178 te foofu lañuy taxawé inshallah bimi wax شرطي wirde wi da ci وشرطه الخاص به لمن قدر عليه استحضار سورة القدوة بين يديه وأنه جالس بين يديه من أول الذكر إلى آخره ويستمد منه آه. نينا آه. bokk na ci charte wird wi nga xam ne euh, charte bu wird wi jagoo la mooy ki nga xam ne moom mooy wird mu teewlu jëmmi cheikh te fii nii <laughs> dëgg la da koo da ko mbëmbëstal waxut ne euh, cheikh si boppam lay teewlu waxut loola waaye li mu wax rek mooy Euh, na teewlu nataalu royukaay bi waaye xam nga xudwa gi da ko da euh, maanaam da ko da ko taarif ko indil alif ak laam nataalu nataalub royukaay ba na ko teewlu ca kanamam na xam ne it kooka mu ngi toog ci kanamam na tëbbu itam ci moom waaw kon lii mu ngi bokk ci yi nga xam ne moom it amul dalil ci alquran ak ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nañ ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na dikr tudd yàlla subhanahu wa taala wax saxaaba ridwanullahi alayhim na leen est-ce que mos na wax saxaaba yi na leen bu ngeen di zikr na ngeen ma teewlu man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen gëm ne maa ngi toog ak yéen tontu bi mooy déedéet amut fenn bi fi jógee it saxaaba yi yenu leer gi nga xam ne moom la yonent bi doon jàngale di ko jàngal na ya est-ce que mos nañ leen a wax na leen bu ngeen di zikr di tudd yàlla subhanahu wa taala na ngeen ñu teewlu ñun saxaaba yi man Aboubacar man Omar man Ousmane man Ali tontu bi mooy déedéet tontu bi mooy déedéet te lii mooy jëmmi bokkaale ak yàlla subhanahu wa taala teewlu cheikh ci jamono bi ngay def wirda mooy jëmmi bokkaale ak yàlla subhanahu wa waaw jëmmi bokkaaleeg yàlla subhanahu wa taala la xam nga lu tax nee nañ boo ko teewloo da ngay tëbb ci moom tëbbu ci moom boobu nag pour mu leer la da ngay dem ci yeneen téere yi ci tariqa bi nga xam ne dañ lay wax ne la même boo nekkoon ci jaaxle nga woo sëriñ bi xettale ko ci moom mathalan bu fekkoon ne gaynde dala kar si jamono boo xam ne yaa ngi wér fekk yaa ngi teewlu woon nataalu cheikh man nga ne yaa cheikh ahmed tijaani anqidni min hada asad xettali ma ci gaynde gi su boobaa jarul ngay wax ne yaa allah anqidni min hada al yow yàlla xettali ma ci gaynde gi nee na jarul nga di ko wax man nga ne yaa cheikh ahmed tijaani anqidni min hada asad xet li ma ci gaynde gi bu doon sa kër a ñàkk dépasse jamono jooju ñu wax la ko nga yëg ko man nga woo cheikh xettale ko ci moom bu dee taw moo amut man nga woo cheikh xettale ko ci moom bu dee da nga am ku feebar man nga woo cheikh xettale ko ci moom te lii may wax nii du suma waaye boo demee ci arrimah omar il fuuti nee na wa rabiu min al aadabi an yastamidda bi qalbihi inda shuruuihi fi dikir nee na ñeenteel bi ci teggee ni mooy nga tëbbu ci xolam na tëbbu ci xolam bu nekkee buy tàmbali zikr lu muy tëbbu mooy himmata cheikhihi yitte sëriñ sëriñam bi wa yastaxdirahu nee na na ko teewlu ci xelam yow yaa ngi tudd yàlla subhanahu wa taala lu la teree teewlu yàlla ak màggaayam ak ay melokaanam tabaraka wa taala waaye déedéet ñu naan la na nga na nga na nga na nataalu cheikh wa yulaaxiduhu na na ko seetlu maanaam teewlu gi muy teewlu yitte cheikh bi noona na ciy bàyyi xel li yakuna rafiqahu fi seyri ila llahi taala ngir sëriñ bi ànd moom ci dox boobu muy dox jëm ci yàlla subhanahu wa taala Omaril Fuuti ne wa hada min ahami al mu ne li bokk ne ci teggi ni gën a am solo mu daal ne walaw naadaa cheyqahu bi lisaanihi bil istigaasati inda al ixtiyaaji la jaaza nee na bu amoon lu laaj xettaleku ku feebar la taw bu wàccut la doo euh, dépasse bu bu bu jeex la dégg nga euh, musiba wu dëgmal ci moom la nee na su boobaa su woowoon cheikh sëriñam bi xettaleku ci moom nee na su boobaa loola dagan na ah dagan na de waaye fi inda tijaaniyati lakin laysa inda allah wala inda rasulillah wala inda ulamai shara daganut fa yàlla de moom waaw daganut it fa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daganut it fa ulamau yi nga xam ne waxu yàlla la ñuy topp di topp waxu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ñoom de du dagan si ñoom mukk ñuy xettaleku ci keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala saxaaba yi lu leen yonente bi sala lu leen yàlla wax ci alquran kera xeexu badar gisoon nañ yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam gisoon nañ waxuma la nataalam bal jëmmam mu ngi woon ci seen kanam yàlla na leen id tastagiisuuna rabbakum id tastagiisuuna rabbakum ba ngeen di xettaleku seen borom waaw xolal limaada lam yastagiisu binnabi alayhi salaatu wassalaam lu tax xettalekuñ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te booba xoolal nu julit ñi néewee ak na yéeféer yi baree ak ni ñu ñàkkee ay jimtukaay ànd ak loolu yépp yàlla ne istastaghithuna rabbakum bi ngeen di xettaleku seen borom tabaraka wa te waxul leen bi ngeen di xettalekoo muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon léeg-léeg sax ñu wax comme ni mu nekkee ci jawaayir nii ne Euh, nga teewlu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu it dañ koo wax noonu pour tadlis rek pour lëntal la waaw moo tax Abdul euh, Hafiz al Alawi ci nazmum ba dafa wax ne wa indana min axsani al aamali taqdimu cheyqina lidil lidal majaali li ñu gënal mooy saa yoo nekkee ci wirde wi jamono ji jamono ji ngay wirde na nga teewlu nataalu cheikh ma ne loolu mooy wasaait yi fi yonent bi saasam doon jëlee rek yéeféer yi màkka yi buñ leen waxoon na leen yéen lu tax ngeen di jaamu keneen ku dul yàlla dañ naan ñun xam nañ ne yàlla mooy yàlla moom lañ war a jaamu waaye ñii dañoo bëgg ñu jegeel ñu yàlla maa naabuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa loolu lu ko utaleeg pas-pas bi ñu war a tudd yàlla subhanahu wa taala war a jaamu yàlla subhanahu wa taala ñu ne la da ngay teewlu photo cheikh da ngay teewlu photo cheikh mushrikoon itam loolu lañ doon def di dañuy teewlu jëmmi yooya ñuy jaamu moo xam ña say jaamu nit ña say jaamu janta ak seen jëmm ya la ñuy teewlu waaye ñoom xamoon nañ ne yàlla yàlla mooy def yëpp wala in saaltuhu man xalaqa alsamawati wal ard la yaqulunna allah soo leen laajee ku bind asamaan wala ku bind suuf dañ la wax ne la yàlla la kon ñoom xamoon nañ loolu waaye ànd ak loolu yëpp ñu ngi doon def ay xeetu bokkaaleeg yàlla subhanahu wa taala kon waasita muy diggale sa digganteeg yàlla subhanahu wa taala fi ko sharia di nangoo mooy ci xamal la diina bàyyi la nga dem jaamu yàlla subhanahu wa taala waaye amul jaamu yàlla gooy nekk ngoo xam ne yonentoo gën a màgg ñëpp dañ la naan booy jaamu jaam booy jaamu yàlla jaamu yàlla gi na nga teewlu nataalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sa kanam waxuma laa ñu la nga teewlu nataalu cheikh léegi ñi doon jaamu yàlla laata cheikh ñoom ñoom nataali ku ñuy ku ñuy teewlu ñoom nataali ku ñuy teewlu kon mbokk yi mën ngeen teg seen baaraam foofu incha allah ba beneen jotaay hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون